taxiru fi ali taaxatin yéexee def ak topp yàlla yéexe jullik farata lay wax maanaam jullik farata nga yéexe ko ba waxtu wa jàll ci sa coobare bokk na ci bakkaar yu mag yi julli sax boo ko yéexee ba muxtaar ma rek jàll danga am bàkkaar bu mag rawante na nga yéexee ko far ba daroor yu tam jàll moo tax mu teg ci falaa takkun bul nekk mu wax xira salaati di aji yéexe julli ga xan waqtihaa walis waxtoom bi xayri xudrin ci dul ngànt yati loolu dana dikk bul yeexe mukk julli ba waxtu wa jàll te ngànt waralu ko niki fàtte mbaa nelaw yoo xam ne mënoo ci woon dara wala tuhin bul doyadal musliman ab julit laa tantaxir bul gëdd musliman ab julit wala te bul ŋàññ ab julit wala tu xawif te bul ragalloo maanaam bul tiital ak a musliman ab julit watub na nga tuub minhu ci leen lu ne ci loolu boo ko defee ab julit na nga ko moytoo yàpp mbaa nga di ko gëdd mbaa nga di ko xas mbaa nga di ko tiital ak a xëpp yii sañoo koo def sa mbokkum julit boo ko defee na ko tuub te moytu caa dellu maalam yokkum li feeg nekkut li ajli xaqin ngir àq sharax yin bi ko jug yoon amma loxoo ndaal ngir moom nag falaa yuraa def ko gis daaman xin muy boroomuk tere lu may na nga xam ne jullit ba dafa jàdd yoon su boobaa ab jullit ne moom moo ko ci awale te tuyaabale ci am ndax ndegam daa jàdd yoon rek ñu awale ko ca ka ko ci awale tuyaaba la cay am waaye nag daa am mbir xam ne àttekat bi rek moo saña taxaw temb ci wéyal ci santaane bi yàlla waaye yow mi nga xam nitu kese nga du rek noo mu aay rek nga taxaw temb ci ne tey ma dindi ko foofu am nag teqale waxi zina sunu wattu al al suna làmmiñ ja min fahsha in ci aw ñaaw teef aw jabaxoo waral na ko al jabbaaru notaakon ba du samaay kay borom asamaan wa min xabaa'ihil kalaami ak ci way boni wax wal yamini ak giñ bil xisqi ci ak goreel wat ak pase xooxaa na ngeen leen wattu ajuma xiina mbir mu muy mboole seen bokk na ci war mu kàllaf mu téye làmmiñam bu baax a baax moytu caa wax ju ñaaw wax ju ñaaw nag li koy xàmmee mooy wax joo xam ne boo amee kersa boo ko waxee rek ruus xamal ne rafetut ba rafetoon rek doo ko ruus a wax lu jëm nag ci buntu suuf mbaa buntu sawukaay te yow bëgg boo koy wax nga tegginal ko ndegam ki ngay waxal boo ko tegginal dana ko xam su fekkee nag boo ko tegginal du ko xam kon mën ngaa xàppati ci digg ba bokk na ci war a ci làmmiñ giñ ci fase mbaa giñ ci goreel ndax yonante bi dana ko aaye woon am na ñu ko jàppe aayeg araamal am ñu ko jàppee aayeg sib fase su demee mënti ñàkk rek moom góor gi sañ naa fase waaye nag bu mu jekki di waat naa tey ji duma nangam mbaa danaa nangam li ma wax su deñee sama soxna fas yéene mbaa lu koy nuru na ko moytu. goreel moom dafa bari tuyaaba lool ci jamonoy jaam amee nga am jaam goreel ko waaye moom it na jekki-jekki def ko rek waaye bu mu ko acc ci ngiñ di ki diggiñ naa tey danaa nangam mbaa duma nangam li ma wax bu deñee sama jaam bi gore na yu mel noonu te nu ko aaye woon na ko moytu ci làmmiñam bu baax a baax waxi vugum seen wattu basarakum seen gis minal xaraami ci aji araam aw jabaxoo waral na ko xaleykum ci yéen rabul anaam borom bi ndee fi ba tey bët lu mata téye la ndax gis lu warta gis tey sarba ca xol ba tax mu ne kenn ku ne ci yéen war nay moytoo xool lu araam wan zajiroo na ngeen jàjju xan nazarin walis xool li muslimin jëm ci ab julit bi nazaratin ci ab xool du uvihi ba dana ko lor duuna mujrimin ci lu dul aji tooñ fa innahu naka moom xaleykum war na leen fiima ca la nga xam ne shuriha yoonaleef na ko hijraanu foo tongam nga nasihatam ngir laabire li yartadiha ngir mu jàjju dafa wax ne sa mbokkum julit danga koy xool bëti yërmaane bëti mbokkoo te maytu koo xool xool bu ñaaw boo xam bu la ne jàkk rek daal di xam ne yow mi daal yéene woo ko jàmm boobu xool bul ko xool mukk sa mbokkum julit bu dee nag ab yéefar wala julit la waaye dafa saay-saay saay-saay mooy muy def yu araam yi te di ko njéeméeral nga xam ne moom làq-làqalu ko sax ku mel noonu moom dañoo jëlale xool ko bët bu ñaaw waaye da ko war a jàmbu ndax bu dee yéefar ba mu xat ba wëlbatiku tuub baa bu dee julit ba ñaaw ak julit mu wëlbatiku tuub rafetu julit kooku tong nga koy tong mooy jàmm nga koy jàmm bañ ko tudd bañ ko taas te yàlla rek tax moom mën naa yàgg te tuyaaba nga cay am wal tax zaroo na ngeen wattandiku suxbata kulli faasixin àndaaleeg bépp saay-saay id ngir zaaka loolu ma xëyru laa du aje yàlla bil muridi ci ab taalibe nee na ab day ànd koo xam dana ci yokkoo ak mbaax te bañ a ànd koo xam ne saay-saay la xam ne faaw mu wàll ko caay-caay ga loolu ab taalibe da koy moytu fal taxfazoo na ngeen wattu al axda ak cër ya batnun te mooy biir wal lisaanu ak làmmiñ farjun ak pay warjulaani ak ñaari tànk waxay naani ak ñaari bët yeddaani ak ñaari loxo boo baax daxaa nekkal seen gannaaw ub naani ñaari nopp man raxaa ku sàmm laxaa ñeel leen xandil maxaa si walis ay mooy kullihaa mboole seen yentafi xaa mu jariñoo daa njëkk a wax léegi làmmiñ ak bët beral leen ci nga war leen a moytu mu far tudd nag far cër yëpp rek ne daal am na juróom-ñaari cër yoo xam ne doomi aadama bu ne war na koo sàmm bu baax a baax di ca moytoo mooy te mooy biir ak làmmiñ muy ñaar ak sawukaay muy ñett ak ñaari tànk nga wàññi ko benn muy ñeent ak ñaari bët nga wàññi ko benn ak ñaari loxo ak ñaari nopp ku sàmm cër yi yëpp rek bu néew ci yàlla faaw rek mu am njariñ tey ak ëllëg képp min xaa ci ñoom jumlatan mbir mu mi boole seen xadd xaabalat jàkkaarloo naag baabun bunt mi ne niiraani ci sawara ya fii maa ca la nga xam ne xad sabata sax na juróom ñaari cër yile mat nañoo sàmm bu baax ndax benn cër bu ci ne am na buntub sawara bu mu jàkkaar lool wa yow man yëkkun ku nekk xaafisaha di aji wattu leen yukk fa kon def na ko fegal du xoolan ak dugg yow mal xanaa ci disub coono ba fii naari dil xaari ci sawaraw boroom noteel ga aljalili kay aju màgg wa man xasaa ku moyit almawla buur ba di xob biwuñ ci ab cër abadan faaw fa baabu xaa baabu xasaa bi mooy buntub mbugalam ga xadan ci alak nee na ku sàmm daal juróom-ñaari cër yépp da nga mucc ci mboolem bunti sawara yi doo ci dugg benn benn ku mooy yàlla ci benn cër nag te yàlla jéggalu ko nag kon bunt ba jàkkaarloog cër boobee ca lay duggee li ma jàng ne yukk fa du xoolan nag ak lu mel noonu kii jàng mu koy seetlu bu mu tax mu soppi ab téeréem jàng benn benn bi rek moo ko waral waaye na bàyyi rek niñ ko bindee ci yukk fa du xool wa kullukum képp ci yéen yuus alu def na ko laaj xan raayin walis ak sàmm raa goog sàmm na ko kama ata ni ki dikkee ci loolu xadisu man adisu ka nga xam ne wa wattu na nee kenn ku ne na xam ne ab sàmm la te bu ëllëgee daañ ko laaj lam doon sàmm mais bu fekkee sa bopp rek la amoo kenn ku aju ci yow su ëllëgee yow dong sa lañ lay laaj duñ la laaj keneen mbaa leneen waaye nag boo jabootee kenn ni ki doom mbaa soxna dañ lay laaj ndax taxawoon nga ci ci àq nam waree am déet bu dee kilifa ñu laaj ko ñamu ilifoon amal bu toonu daal biir ya fax faduha na ngeen leen wattu min xaraamin ci jëpp aj araam boo subxatin akum lënt te naawulan ci ak yootu bilan fisaa mi ci dul dokk nee na biir moom da koy sàmm bu baax ba loo ci dugal rek mu wóor la ne lu lew la da nga moytoo dugal ci sa biir lu araam mbaa lu lënt wajtahidoo na ngeen farlu fi talabil xalaali ci sàkku aji lew fa huwa moom al muqarrib mooy aji jegeñal di jalaali jëm ci borom màgg ga da farlu ci am lu lew ndax di jëfandikoo lu lew mooy tax boo jaamoo yàlla yàlla nangu ko jegeel la boppam waju taxi doon a ngeen farlu in niltumoo ndéem am ngeen ko fixtisaarin ci gàttañlu xan sibaxin walis regg fa innahu naka moom ra zuufa tiraarin mooy bopp waru mooy njëlbeenu waru lu leew dafa jafe boo ko amee danga koy sàmm bu baax a baax bañ ko yàq te sax boo ci xéewlu bul ëppal niki booy lekk sax bul àgg ci regg ibi ngir shibahu shaxsi reguk jëmm ja minal xalaali ci aji lew mabda kulli sharri mooy tàmbalikaayu wépp ay fil axwaali ca mbir ya nit ki bu lekkee ba regg doonte sax lool lew na ci moom moo ko moom lew na ko bu xasee regg day mel ne cër bi ci des dañoo xiif ko defee cër bu nekk di ko ñor di jëmee ko ci lu aay te bu xiifoon nag moom day mel ne cër yépp dañoo regg mu daldi amuk dal am yaru waaye bu xasee regg rek moom cër bu nekk da koy ñor di jëme ko ci ñu bëgg a lu yoonam nekkut jëm ci lu aay tànk yi noonu bëgg a dox lu seen yoon nekkut ak cër yi ci des rek noonu la def fii nekk na ci regg mënal aafaati ci ay gàkk maa loo xam ne laa yu saa defu ko mën lim tafi dana dikk min xaa ci ñoom sittun juróom benn xunaa fii li tux ngir bu dee fi na rek googu daal ni mu baree ay yàq-yàq yu mu lay yàqal kenn mënu koo waaye nag ñu wax la juróom benn te nga jàpp ko taqsiyatul qulubi wawal xol ya ifsaadul xuqooli ak yàq xel ya ibtaaluhu ak yàqam xifzan ak mokkal yu saxihu kuk dana wéral an nuqoola toxal ya nee na rek day tax sa xol woow ba nga xamee ne buñ la waaree doo waaru boo gisee lu sa xol war a am yërmaande du ci am yërmaande dugal ci yu daal day jafe bu xol bi xasee wow te rek dana ko waral mooy taqoo rek saa nekk ba tey taqoo day tax sam xel naqari loo neex ne boo taqoo rek di rek saa yu sam xel day naqari day tax a fëtt ba tey mooy ñetteel bi bu fekkee amoon na lu mokkal tam bu taqoo rek rek day mujj la mokkaloon mu fatt ko way woowu ñett a ngi ci wa siqalul axdaay ak diisug cër ya xan xibaadatin walis jaamu yàlla waxan xoloomin ak walis ay xam-xam xad xawat yooyu làq nañu ifaadatan njariñ bi ko ñeenteel nag mooy saxoo rek day tax sa yaram diis nga tàyyal ba nga xam ne doo sawar ci jaamu yàlla mbaa gëstu xam-xam bu am njariñ wa yansuru te muy dimbale a seytaane seytaane mooy juróomeel bi saxoo rek day tax seytaane gën am doole ci yow gën laa mën a wëlbati mooy boo saxoo rekk rek yaa ngi dimbali seytaane ci sa bopp muy juróom wa yu xaw wi te muy dëgëral al lazzaati bànneex ya aydan ba tey fax daroo na ngeen wattandiku al afaati gàkk yooyu ne juróom benneel nag mooy loo gën a taqoo rek rek sa bànneex gën di yokku ndax bakkan bi daa bëgg xam te loo ko jox rek mu yóotuwaat lu ko ëpp nga xam ne kon loo gën di regg sa bànneex gën di am doole gën di jëm ci kanam ba talabul xalaal yi sàkku aji lew fardun farata la yantami tudd na askanu li kulli muslimin jëm ci bépp jullit bi xëy di waxee mi ci lul njuumte wut lu leew moom nee na farata la ci bépp jullit ndax nekkum jullit mënta ñàkk lekk mënta ñàkk a naan mënta ñàkk a fatu mënta ñàkk a te ci lu leew rek la ko sañ a defe kon nag sàkku leew moom farata la ci bépp jullit laayeen faxam du jëriñ alxilmu xam-xam wala xibaadatu du caagéenu jaamu yàlla bil ëkk li ànd ak lekk li xaraam yi ñeen aji araam xinda saadati fa sang ya ñu baax ñi nee nañu nit bu dee lekk lu araam lu mën di am ci xam-xam ak lu mën na bari ci jaamu yàlla itam du tax mu amal ko njariñ wax taziro na ngeen wattandiku min allazi ca la xam ne ay xantumoo woolu ngeen bi kaw ni ci ak nekkam alxaraama di aji araam aw zanantumoo wala ngeen jortu ko moom daal na ngeen fexe ba lépp lu ngeen di jëfandikoo rek mu wóor leen ne dagan na waaye lu leen wóor ne moom daa araam mbaa ngeen jortu ko sax na ngeen ko moytu bu baax a baax lu lënt sax dañoo bëgg nga moytu ko bala mu laa yóbbu ci lu araam wala takk tafoo na ngeen doyloo bi maa ci la nga xam ne yuq mu dana taxawal asul ba ndigg la dina taxaami ci aw ñam li tuuti yaxoo ngir ngeen mën a topp arab ba boru ba bu ngeen di xéewlu itam da ngeen di jëfandiku loo xam ne yem na dana sàmm seen wéru yaram rek bu ngeen mën a topp yàlla bu baax waaye bu leen ëppal inna taxaama a ñam malihun aji xoromu la mooy aji neex la xinda aakilin fa aji lekk laakin waaye yasiru day mujj baaxlu ca gannaaw ba maxaa itan di ay xayta xabixan yuy aji bon nee na ñam boo ko dee lekk day neex te neexaay bi du weesukat ginu gi rek te nag day mujj soppi ko ay xayta ci biir yoo xam ne tàggoog moom rek ngay bëgg boo sañoon sax du nekk ci yow wanta bi xoon na ngeen yeewu fi àndal axda ci naka cër ya tashhadu danañu seere xadan ci ëllëg ci yéen fii maa ci la nga xam ne wara da arot na na ngeen bàyyi xel ci ne kenn ku ne bu ëllëgee ay cëram da koy seere mooy cër ci boppam ñooy wax na jëm ji doon def ci àdduna wa yawma tashhadu alayhimu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun wal taamaloo na jëfe bil xashrati ca fukk ya al usuli ya di ay cosaan fa innaha naka ñoom masaalikul usuli ñoo di yooni àgg masaalik mooy firi ay soobukaay waaye mooy ay yoon daa wax ne fukk yi muy bëgg a wax ay cosaan lañu ci yoonu yàlla mënuñoo ñàkk kon nag dangeen ko jëfe bu baax ndax kat fukk yi ci lañuy jaare ba àgg fal taqtaxoo na ngeen dog ak taswiifa néeg néegal maanaam yeexamtalu xassiroo na ngeen gàttal al amala mébét ma ida ngir laysa yumkinu du jàppandi xamalun jëf duuna zawini ci ludul yi la yaar liy wax yeexamtalu nee na na ngeen ko baax lu baax lu ngeen nar rek taxaw leen ci temm fasaasa bañ koo jëme weneen waxtu ndax xamoo waxtu wooyu bu dikkee da nga ca man la nga mën nam déet mbaa sax danga dund bu fekkee waxtu woowaam déet ak soo bëggee boole la nga def ci waxtu woowa ak loole nga ko doon nége mën na am yaar yépp du bokk yéwén kon daal moom yee xamtalu ci def lu baax ak yi nga xam toll ci bàyyi lu bon fa saasay saasa bu leen ci def lenn lenn na ngeen gaawantu ci def lu baax gaawantu ci moytu safaan ba muy lu bon te bañ koo négee wenn waxtu ngeen di gàttal seeni mébét maanaam bañ a yaakaar fan wu gudd ak ne lu ngeen amutoon rek daa agsee gudd waaye mi ngi ñëw nit bu xasee guddi mébét maanaam yaakaar fan wu gudd ak xéwal ak jàmm day néew ay topp yàlla te bari ay moy ndax lu nar def ci lu baax ne na xaar ba waxtu sàngam mu door koo def bu naree tuub itam ne ah tuub wéegut bala maa faatu rek tuub loolu moo tax guddi mébét moom day gàllankoor nit wal tamisoo na ngeen sàkku idaamatal muraqabati saxal fugloonte yàlla fahiya moom jaalibatun aji ñoddee la ilaa xusnil xitaami jëm ci rafetuk mucc nee na ngeen farlu ci bàyyi xel yàlla fu ngeen toll ba mooy foo toll bàyyi xel ci ne sa boroom mu ngi lay gis sa biir ak sa bitti yow nag boo ko gisutit ngay bàyyi xel rek ci gis gi mu lay gis loolu nag nee na saxoo ko maanaam bàyyi xel yàlla foo toll jàpp ne mi ngi lay gis dana tax am mujj gu rafet wa mañ yadaa ku bàyyi kulla fudoolin gépp caaxaan lam yaxus goog làqut jamxan ak dogu xalaa rabbil bariyati ci buurub mbindeef yi yaxus mu texe ne li baax daal mooy moytu lépp luy caaxaan ku jël na yitteem jëpp jëpp jëme ko ci yàlla daldi moytu nag lépp luy xeetu caaxaan gu koy teye jëme léppam ci yàlla kooka na xam ne kon ma nga ci yoonu texe waxariroo na ngeen di sellal niyatan yéene min qabli fi'lin ci njëkk jëf wal taarifoo te ngeen xam rashaadahoo jubam ga wa xayyahoo ak réeram ga ne ngeen farlu ci bala ngeen a jëf xam la ngeen di jëf aw yiw la mbaa ab safaan la bu leen jekki-jekki rek songu dara te xamu leen lu yàlla gërëm la am lu yàlla gërëmul la gannaaw bu ngeen xamee nag ne loolu lu yàlla gërëm la di ngeen fexe ba def ko ngir yàlla kese dara bañ caarax te loolu mooy sellal yéene ja wajji tani boo na ngeen teet mooy na ngeen moytu alxawaatira xalaat ya arradiyata yi aji bon waaye dañ cee jublu yi aji ñàkk solo rek mooy yi amul njariñ wala si woo ta ngeen taqoo alxawaatira xalaat ya al mardiyata ya di ñu gërëm ne ngeen toll da di xalaat aw yiw te lépp toq ci seen xel ci xalaatu ay mbaa xalaat bu amul njariñ ngeen gaaw ko dàq bala faa dëkk ndax li ngay xalaat ci sam xel dalay ñoddi jëme ci jëfe ko kon na ngeen taqoo xalaat yu teey xalaat yu ñu gërëm mu leen di ñodde ci jëme ci wax lu ñu gërëm ak def lu ñu gërëm tey moytu nag xalaat yu yamaay yi muy xalaat lu amul njariñ rawante na nag xalaat lu araam mbaa lu ñu sib yooyu mat naa moytu lool ndax la xalaat rek da lay ñor di jëme ci jëfe ga takkasiiru xultatin bari lug jaxasoo bilan tifaaxin ci lul jëriñu daaxin aji woote la ila dunoo bi jëme ci bàkkaar wala xijaabi ak kiiraay nee dangeen da ngeen di moytu jaxasoo boo xam ne amul njariñ ndax jaxasoo bu amul njariñ moom day tax a bari ay bàkkaar taxit sa digganteeg sa boroom gën a am ñag bu fay dox ba doo mën a jàll ci moom jaxasoo daal bu dee dimbalante ji lu baax loola baax na waaye lépp ci jaxasoo yi moom day indi rek bakkaar yu baree bari ndax jëw ak dégg loo warta dégg yu baree bari da cay am ci jaxasoo boobule waxaalifoo na ngeen di juyoonteeg nu foo sakum seeni bakkan fiimaa ca la nga xam ne taxat woote nañu lëxoo jëme ca moom maxat tihaamiha ànd ak tuumaal bakkan ya fiimaa ca la nga xam ne it daxat woote nañu ko ci dëggu na ngeen di juyoonteeg seeni bakkan lu leen seen bakkan woo jëme ca rek bañ leen ndax bakkan moom la ci ëpp lu baaxul ci rek la lay woo jëme ca inna sa la amaaratun bissu'i te it bu ngeen gisee seen bakkan muy woote ak dëggu ak fuk farlu ci lu baax it bu tax ngeen jàpp ne loola am na li ci ëpp bakkan day woote léeg-léeg ak dëggu ak fuk farlu te boo ko seetloo dëgg-dëgg rek loolee dara amu ca kon nag da ngeen nemmiku seen bopp fu ngeen toll te bañ woo lu mukk seen bopp maanaam daal na seen bakkan mel bu leen neex ndax koo xam ne na bakkanam mel neex na ko rek li ci ëpp day deltu gannaaw waaye du yokkooti wala tëkkunte bul nekk dasti jaalin di boroomu yàkkamti fil fatxi ci ubbi ga fa indahu moom almaxiidu kem mbërëg la li rijaali ñeel góor ña ena boo topp sa boroom di wut ngërëmam bul yàkkamti ne man daal wut naa ba tàyyi te ba tey yàlla mayaguma fatxu gisaguma daal lu ma yàlla defal lu may sawarloo leen loolu ëpp naa def ndax boo yàkkamtee fatxu day dokk sa digganteeg sa borom ni nga xam ne jigéen bu gisee mbërëg li wax baax day dox digganteem ak jëkkëram ba du am sañ-sañu joteeg moom ni mbërëg di dogee diggante jigéen ak ka mu muy góor ga ndax góor ga du sañ a jotee teeg moom ci yooyu jamono yàkkamti cër bala yàllay jox itam noonu lay mel mën naa dox sa digganteeg sa boroom wal tusbit na ngay saxal alxasda jublu ga ilaa mawlaa ga jëm ci sa boroom mul taji an mbir mu ngay aji wéeru bi sukkurima ci sant la nga xam ne awlaa ga méngale na la ko te mooy jox na la ko doo dum nga sax xala zikri ci tudd yàlla ga maxal ixlaasi ànd ak sellal ga fa innahu naka moom at tariqu mooy yoon wa lil xalaasi jëm ci mucc nanga sax ci dëgmal sa boroom foo toll te di ko sant ndax mën laa matale ak cantam mukk-mukk na ngay sa boroom ci di ko tudd di ko sant te sellal tudd ga sellal cant ga ndax nee na saxoo ko tudd ci saw làmmiñ te di ko fàttaliku ci sam xel ak ci sa xol te ànd ko sellal loolu ci la ñuy amee ak mucc ci la ame amee ngërëm wala takkunte bul nekk muntabida sharihati di aj wàcc shariha fanab duha ak waccam darixatun jot likukaay la maanaam sabab la rek ila rada jëm ci alkande nee nag li yàlla rëdd muy shariha na nga ko xam te yeew ci sa bopp bu baax a baax bu ni mukk daal yàlla xol bu set la soxla te man saa xol set na ba mën na maa bañ a def la mu digle ba mën na maa xëtt la mu tere te du mu wàññi dara déedéet nee na shariha moom mooy gaal gi nga xam ne ci la ñuy ndox mi kon nag boo bëggee aw ci géej gi te awoo ci gaal soo tuur rek lab na nga sàmm sarixa bu baax a baax waaye wàcc sarixa moom alkandi rek lay indi wax dara na nga watandiku raxaaka yàlla la sàmm allahu yàlla antu saaki na ngay dëkkaaleeg xayral jalili kurul aji màgg ja zahiran ci bitti wa baatinan ak ci biir na nga moytu itam wéttalikoo ak yank lu bokkut ak yàlla ci biir ak biti daal foo toll na ngay wéttalikoo yàlla def ko muy sa wéttal def ko muy ka ngay wéeru saa yu nekk ndax lépp loo wéttalikoo lu bokkut ak yàlla rek danga nga mujj wéet wa xaasib xisaabal an sa bakkan ba sabaaxan ci suba wa masaan ak ci ngoon te kun kon nga nekk xadan ci ëllëg muqaddasan di ko ñu sellal minal aza ci lor del xisaab sa bopp suba ngoon bala ñu laa xisaab te loolu mooy suba ngoon ngay seet ba xam yaa ngi taxaw temm ci la war am ndéet soo seetloo ne la war yaa nga ca ngay sant tey jiyam muy dolli ku jëm kanam soo gisee nag ne am na lu ca manqué nga taxaw temm ci dabaatal ko fas mu mat te bu ëllëgee du manqueeti ndax boo xisaabee sa bopp fii day tax bu ëllëgee bu ñu lay xisaab rek xisaab ba daal di yomb moo tax mën naa del xisaab sa bopp suba ngoon kon yàlla musal la ci jépp lor wa dum na nga sax xalaat tawbati ci tuub fii kulli zamanin ci jépp jamono min jumlatin xisyaani ci mboole moy ga sirran ci lu nëbbu wa alanan ak ci lu feeñ foo tollu da sax ci tuub lépp loo xam ci mooy rek del ñaan sa boroom mu jéggal la ko nga di ko rëccu ci biir ak ci bitti fas ci yéene bañ dellooti mukk mukk ndax yàlla jéggal la ko daa waxal nag ne fukk yi ñoo di yoonu àgg ci yàlla tàmbalee wax rek nag waaye taxutal nag mu ne lii mooy benn lii mooy ñaar lii mooy ñett te gis nga ne way way bari la xam naa kon dañuy jéem a jàpp rek way yépp ni mu dikkee waaye yu xute teqale nag fukk yi wax ne lii benn la lii benn la lii benn la wala boog ku amul yaatu mu seetlu ba xam mën na koo toftale def koy benn benn ba mu nekk fukk am déet fa haadihi usulu yi cosaan xuddat limeef na leen lil wusooli ñeel àgg ci yàlla wa badat te feeñ nañu aydan ba tey usoolan mbir mu ñu ay cosaan lit tasawuf ñeel tasawuf ba tey nee na yi muy bëgg a wax yu mat jàpp bu baax la ndax nee nañu mooy taxa àgg ci yàlla te it mooy ponki tasawuf awaluha aj jëkk seen talaasumul kitaab yi mooy taqoo alquran wa sunnatil muxtaar yi ak sunnas ka ñu tànn di sawaabi kay boroom jub ga bi ci njëkk mooy nee na taqoo alquran sunna lu alquran digle nga taxaw temm ci def ko lu mu aaye nga taxaw temm ci sori ko ba tey addis muy sunna mooy firi alquran kon moom it nga taxawee ca noona lu ñëw ci sunna rek nga jëm koo matale ci topp lañ ca digle ak sori lañ ca aaye wa tarkul ahwaa ak bàyyi bànneex ya wa tarkul bidaa yi ak bàyyi bidaa ya ba tey bokk na ci mbir yi bañ a topp sa bànneex di seet lay dëgg rek nga di ci aw di moytu itam bidaa mooy lépp lu ñu sos te mu ñàkk déggoo alxuraan ak addis rek nga di ko di moytu itam bidaa mooy lépp lu ñu sos te mu ñàkk déggoo alxuraan ak addis rek nga di ko sori kazaaka naka noonu tabjiilu siyooxi màggal sëriñ sa alxushaxi ñoo dewee ragal yàlla ba tey bokk na ci ponki tasawuf sëriñ su baax si nga leen di màggal ngir yàlla ndax màggal nit ku baax daa bokk ci xeetu màggal yàlla te bokk na ci teggiin ormaal yàlla ormaal képp kuy waayu yàlla muy ab yonante muy waliyu muy boroom xam-xam ba ci nit ci kese yi nga xam ne sax xam yowuñu leen lu may rek gëm du tee nga fonk leen ndax askanu ngañ askanu jëm ca yàlla ru'yatu ahdarin ak gis ay ngànt li kulli xalqin ñel mépp mbindeef bokk na ci mbiri gaa yu baax yi mooy duñu jàppee nit ñi lañu leen def te mu xaw metti waaye weesuwul rekk seen wàllu bakkan nga xam ne laaluñu ormay diine dañuy jàpp rek ne nit ñi moom yàlla leen sàkk di leen wëlbati rek waaye ñoom du ñooy wëlbati seen bopp kon nag lu leen nit def te naqar ci seen bakkan kese yam ca duñ ko ko jàppee duñ ko ko xoole duñ ko ca mere mbaa dara du tee nag bu ñu xëttee ormay yàlla ñu daal di sàmm teggiin taxaw temm ci taxawal yàlla aaye loolee bu dee luñ mën a aaye bu ñu amee kàttanu sax man koo dindi dal koy dindi fa saasa nga xam ne ci wàllu seen bakkan moom lu leen ci nit mën di def dañuy jàpp ne rek yàlla boo demee sax ñoom ñoo def ci dëgg-dëgg la waral yàlla yebal nit kookee mu def leen loolee bu dee nag lu aju ci gis nit ñi ñuy xëtt shariha maanaam def lu juyoog ndigalul yàlla moom dañuy jàppi nit ñi ne ñoo moom seen bopp ñooy soppandiku bëgg xëtt ndigalu yàlla su boobaa nag ñoom dañuy taxaw temm ci awali leen ci raddu shariha kem seen kàttan kon daal ci gàttal gisal mbindee fi moom mooy ci wàllu yàlla nga leen jàppe mel ne ñoom nit ñi lañuy def ñoo koy tey te mën nañ caa am pexe ba ku ci jàdd aw yoon nga jëm ko ca awale te bañ na rek yàlla dogal ci moom ne dana jàdd aw yoon déedéet bu dee nag lu aju ci sa wàllu bakkan dong nag nga jàpp ne rek dogal ba ñëw te nit matut loola matu koo jàppee loolu mooy gàttal bi idaamatul wirdi ak saxal wird li wàccil xaq ngir jëmbi yàlla bokk na ci ponki yoonu gaa yu baax yi saxal wërd wërd mooy jaamu yàlla goo xam ne warut waaye nag lu yàlla sopp la ñu sàkkal ko waxtu woo xam ne buñ ci àggee rek def ko di ko saxal nag bañ koo bàyyi mukk mukk te yàlla tax loolu bokk na ci mbirum gaa yu baax yi dafa am nag wërd woo xam ne tarixa yi dañ koo am mooy tarixa ba nga nekk day am wërd woo xam ne dañ ko ci digle ku ca bokk rek di ko jéem a def bu dee ku nekk ci yoonu Serigne Touba al wirdu al maquudu mooy wañ ko digal waaye teewul nag wirdu ci boppam moom gépp xeetu jaamu yàlla goo xam ne warul rek te jaam bi warlu ko digganteem ak boroomam bu àggee ci waxtu wa def ko rek loola wird la mën na am ci jàngal alquran mën na am ci julli mën na am ci woor ak ci yu baax yi wa ak bàyyi taawil wa ruxsatin ak ruxsa muy ak yolomal maxa xasimatin ci la xam ne xaddu shuriha na ko ba tey bokk na ci yoonu gaayu baax yi li alxuraan di wax mbaa addis te ñu mën ko taawil maanaam mën koo firee ci anam gu woyof ñoom dañuy seet la gën wóor rek te gën a diis ñu jàppe ko noona ndax li ci ëpp yax bu ñëw ci alquran ba hadis mën naa jamtalu ne jamtalu ne nee gën a woyof nee gën a diis ñoom nag na gën a diis te tuyaaba rek lañuy jàpp bàyyi déggin ba gën a jàpp ndi gën a lu may mu ëpp tuyaaba ci firnde ju wóor wóor waaye bu dul loolu rek moom dañuy jàpp ci la gën a wóor te ëpp tuyaaba yoon day am ay jàpp ndal yu muy maye ndax xam ne nit dafa néew doole bu dee gaa yu baax yi nag moom dañuy seet loolee yoon def ruxsa def cag jàpp ndal ñu seet ba xam mu ëpp tuyaaba wala la ca des moo ëpp tuyaaba su fekkee loolee yoon maye mu di jàpp ndal daa ëpp tuyaaba boole ci ñu def ko ndax ngërëm rek la wut ak tuyaaba niki boo dee tukki wàññi julli julli ko ñaar wa nga julli ko ñaar moo gën a jàpp mooy sunna te it ëpp tuyaaba moo tax sax ñu sib ngay tukki su sunna di wàññi yow ngay fekk koo xam day matal ngay ànd ak moom mu lay jiite ndax faaw nga topp ko ca matal ga kon jàpp gu mel noonu moom ñoom gaa yu baax yi dañ cey jàpp bu dëgër a dëgër su dee nag loo xam ne la ca des moo ëpp tuyaaba dañuy jàpp rek la ëpp tuyaaba ni ki bu ñu dee tukki ci weeru koor te na xam ne ne tukki bi du leen sonal du leen yàqal dara ci koor gi yooyu jamono maye nañ sax bu ci sart yi dajee nga bañ a woor waaye ndegam dañ ne koor gaa gën bu dee ñoom dañuy woor ndegam koor gaa gën rek dañuy daal di woor waaye duñu fab jàpp ndal googee shariha maye wali hijaabi nafsi ñeel na kiiraayal bakkan sittatu usoolin juróom benn cosaan taqtaxuha yooyu dana leen dog himmatuman yittey ka nga xam ne yobb xi dana sàkku alwusoola àgg ci yàlla nit day nee na bakkanam su ko toppee ci juróom-benn yii faaw rek loola nekkum ñàkk digganteem ak boroomam moom nit ki kon nag ku am yittey àgg ci yàlla war ngaa jéem xam juróom-benn yi te jéem a tàggoog ñoom iktaaru aklin moo di baril ak lekk maxa iktaaru sharabin ànd ak baril ak naan iktaaru xultatin ak baril ak jaxasoo bi laa raw mi sawaabin ci lu sàkku jub wa kasratul kalaami ak barig wax kasratul manaami ak barig nelaw wa xaflatun ak sàggan xan zikri xaaliqil anaami walis tudd aji bind mbindeef juróom benn yi mooy lekk gu bari ak naan gu bari muy ñaar ak jaxasoo bu bari bu amul njariñ muy ñett ak bari wax muy ñeent ak bari nelaw muy juróom ak sàggan ci tudd yàlla nag muy juróom-benn juróom-benn yi moom neena na faaw rek ku am yi àgg ci yàlla dana ko moytu bu baax a baax mbaa bu ko deful rek juróom-benn yi daal nekk ab ñàkk digganteem ak boroomam wa saxa wér na ne anna taaxatal jalili naka topp aji màgg ja laxaa ñeel na ko salaasat ñett minal usooli ci ay cosaan nee na topp yàlla foo ko fekk kenn ci yett yi moo koy lal mu yett lu ci nekk dana taxa topp yàlla awwaluha aj jëkk seen alxawfu moo di ragal wataaniha aji ñaareel seen arraja moo di wal hubbu cofeel ga jaa adikk na taalisan mbir mu muy aj ñetteel li dil ñeel yi cosaan yett mu wax ne dana tax nit topp yàlla ba ci jëkk nee na mooy ragal a dem sawara ak ya koy jiitu ci xeeti mbugal kon ragal sawara ak mbugalum yàlla am na ñoo xam ne moo leen tax di topp yàlla ñaareel mooy yaakaar maanaam nit mën naa yaakaar ne topp yàlla mu yóbbu ko àjjana mu farlu ci topp yàlla ba tey loolu lu baax la waaye nag ñetteel bi moom moo ëpp ja te moo joxe mooy topp yàlla topp yàlla goo xam ne sopp ko rek moo tax nga di ko topp ndax ki topp yàlla ngir ragal sawara muy al xawfu bu yàlla amutoon sawara bu yàlla sàkkutoon sawara kon moom du topp ke topp yàlla ngir yaakaar àjjana itam bu yàlla sakkutoon àjjana kon du topp ki nga xam ne nag moom sopp gum sopp yàlla rek moo tax mu di ko jaamoo ko topp moom bu yàlla amutoon àjjana ak sawara itam du tee rek muy topp kon ñetti xaaj la topp yàlla ngir ragala dem sawara ak topp yàlla ngir yaakaar dem àjjana ak topp yàlla ngir rekk sopp ko xam ne moom ku yeyoo jaamu la lu ci nekk nag am na màndarga muñ koy xàmmee xalaamatul xaw fi màndargam ragal min arrahmaani ci aji yërëme ji tarkul maxaarimi mooy bàyyi yu araam ya bila tawaalin ci lul yeex lee ragal yàlla gii ñu wax kat mooy rekk kooka gannaaw bu mu xamee ne yàlla moom amee na sawara amee na ay mbugal yu tiis yu mën a jiitu sawara fu mu toll rek bàyyi xel loola ba bàyyi lépp lu yàlla araamal kem kàttanam waaye bokkut ak nag sëgg ci càgganteem sëgg ci càgganteem bu yàlla defee na xew-xew bu tiis a tiis am nag mu daal di tiit yox yoxi bu loola riggalee maanaam bu loo demee rek ba ñu xaw koo fàtte mu daal delluwaat ci ay càgganteem def la ko neex kooku ragal moom taxul ñuy wax googu ragal moom pexe rek la mu seytaane di pexeel nit di ko nax di ko nax rek ba kera dee di ko bett xalaamatu rajaayi màndargam yaakaar raxbatuka mooy sa xemem fii taaxati rabbika ci topp sa boroom bi nax jil muqtafi ci yoonu aji xeñtu ja màndarga mi nga xamee ne kooku am na yaakaar ci boroomam mooy muy farlu ci def la yàlla digle te yaakaar nag li yàlla bële ci ku def loolee mooy de ci yaakaar bu ëllëgee mu yóbbu ko ajjana waaye moom itam bokkut ak ne rek yàlla ku baax la yaakaar naa yërmandeem su ma ko toppatit bu ëllëgee rek ak mbaaxam àgg na ci yóbbu ma ajjana loolu itam du yaakaar ñuy wax ak tamaxu ak xemeem ak ku bëgg rek la alaamatul xubbi màndargam sopp li dil jalaali ñeel borom màgg ga shawqu inaabatin mooy sopp ak tuub inaabatu mooy tuub dellu ci yàlla xalaa tawaalin ci toftaloo li wone nag ne jëmm ji sopp na yàlla mooy du mën a muñ yàlla fu mu toll di jéem tuub di jéem a dellu ci moom bu demee ba jàdd yoon wa itam rëccu delluwaat ci boromam waaye ku mën mooy yàlla di wéy rek du ko geesu du nangoo tuub kooku bëggul yàlla ko bëgg yàlla moom du mën a muñ yàlla fu mu toll di rëccu ay bonbonam di xeeb ay baax baaxam di tuub ak a dellu ca boroomam wa jaa dikk na an hum jële ca ñoom an na xisiyaanal jalili naka mooy aji màgg ja ay doon ba tey lëxoo ko salaasat ñett min al usuli ci ay cosaan ba tey ne mënees naa wax ne li ëpp ci xeeti mooy yàlla yi yett yi ñoo koy sabab mel ne kon yett yi ñooy lal xeeti mooy yàlla yi alkibru moo di ak rëy wal xirsu ak xir maxan boole seen wal xasadu ak kañaan faman xalaa ku wéet xaa ci yett yooyu ataahu kon dikkal ko arrachadu jub yat na mooy rëy ak xir ak kañaan fal kibru rëy xad ahlaka alak na iblisa iblis allah yi naka di rëy mooy jàpp ne am na daraja keneen am na daraja waaye moo ëpp daraja kooka jaam bi nag su jàppee ne li yàlla sàkk am na ci kum gën am na ëpp daraja rek kon ak rëy nekk na ca moom rëy googu nag nee na alagoon iblis ndax iblis ba ko suñu boroom digalee su jootal aadama daa wax ne ana xayrum minhu xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin aadama maa gën bu ma ko su ndax man yaa ma sàkkee ci sawaramu mu leer mi moom nga sàkki ko ci suuf mu lëndëm mii xam ne kon iblis la ko alak mooy rëy ba su aadama def santaane bi yàlla yàlla jaare ca alak ko ba faw faw ak képp ku aw ci yoonam wal xirsu xir xad axraja génne na aadama aadama almakina kay aji yëkkatiku daraja xir nag moom li ko tax a bon mooy boo seetloo sunam aadama ak xawwa ba leen sunu boroom dëkkalee ci àjjana da a may àjjana lu leen ca neex ak fuñ ci bëgg rek xéewloo nañu bëggee ba mu des nag genn garab goo xam ne nee na leen moom rek laayun aaye bu leen ko jege xam nga àjjanam yaatoo nag ñu may leen lépp ñu am ci sañ-sañ ba des genn garab xir jàpp leen ba mënuñu faa bàyyi genn garab googa kon xam nga xir baaxut ndax bañ lekkee ci garab googee rek ci la leen yàlla génnee ci àjjana indi leen ci àdduna wa xamala yan na alxasadu kañaan najj la doomi aadama ja xalaa xatli axi ci rey mbokkam idd hawa ba mu làqee taqabbulan ak nangu li tax kañaan baaxut mooy am doomi adama joo xam ne kaccoor la woon tudd xaabiil am keneen koo xam ne doomi adama la ju baax tudd haabiil dañoo wax ne sunu maam xawaa seex mooy amandoo ñaari doom kee di góor kee di jigéen buñ àggee ci sëy nag kenn ku ne yaa ka nga bokk leen benn biir du ngeen sëy dañ koy jaawale kenn ku ne ñu may la ku bokkut ak nga bokk leen benn biir xaabil mi nga xam ne mooy ku kàccoore ki nag kam seexeeloon mel ne dafa gën a taaru ka seexe woo nag xaabil mu baax mi te buñ toppee noonu moom Haabil ku baax ki daa war a takk ku rafet kee nga xam ne moo seexe woon ak Qaabil muy kàccoor bi Qaabil itam war takk ki seexe woon ak Haabil ku baax ki te kooku ab taaram demewut noona ba su maam Adama waxee loola Qaabil kàccoor bi ne ko loolu yaa ko wax rek bëgg koo def waaye sa boroom santu la ko aadama ne leen def leen li ñuy wax qurbaan qurbaan mooy kenn ku ne génne ci alalam ne lii jaamoo ko yàlla teg ko fee nee nañu su ko yàlla nangoo day yabal sawara weex tàll mu ñëw fab ko bu ko yàlla nanguwut nag aw sawara du ko fab ku baax ki muy Haabil daldi wut ak jur gu baax nee nañu am xaaf mu baax daal koy teg fee ne lee la jaamoo yàlla yàlla yebal aw sawara wu weex tàll mu ñëw fab ko kàccoor bi di Qaabil moom seetlu yemaay yemaay ci xeet dugub mu teg ko fee moom la jaamoo yàlla yàlla yebalut aw sawara mu di ko fab ndax xam ne ni kii bëggul lu baax léegi nag ku bon ki muy xaabil daal di wax ku baax ki ne ko dama lay rey ndax xam naa ne faawu ñu wax ne maa ngi yow def nanu xurbaan te dañ laa nangul man nanguluñ ma ku baax ki ne ko innama yataqabbalu llahu min al muttaqin yàlla day ku am yéen ji rafet ngir jëmmam rek lay nangul kum nangul ku mu nangulut ci yow la ñu topp noonu nag xaabil dogu ci ray ku baax ki muy xaabil xaabil na ko man duma rayante yow su mënta ñàkk ray ma gàddu bakkaar bi waaye man duma rayante yow xaabil wëlbatiku daldi rey xaabil ba xaabil rayee Habil nag xamul nu koy def ndax kookee mu rey muy Habil moo njëkk di ab néew ci kaw suuf booba mu yenu ko rek nag di ko lang-langee sonn ca lool waaye nag suñu boroom wan ko ab baaxaañ boo xam ne ma ngay gas di suul moroomam baaxaañam naka mu gis nag na baaxaañ bay def di gas ak aw sàllam ba amum kan dal tey suul moromum baaxaañam moomee moomu ta mu ne ah man daal maa dofe rek booba tey maa ngi yenu kii di ko lang-langi rek di ci sonn moom it daal di gas suul mbokkam moomule nga xam ne ma ngay réccu rek coono ba mu ci am ci yanu ga diir bu yàgg boobu waaye moom ba tey réccuwut lu lay li mu def xisa boobu ñëw na ci alquran ci teqale ci watlu alayhim naba ab nay aadama bil xaq ba ci mbirum baaxaañ ba fa baxasallahu xuraaban yabaxasu fil ard ba namu daanoo nga xam ne kañaan moom it lay def baaxut lu bare bare ci xeeti bakkaar yi ak xeeti mooy yàlla yi moo ci yóbbu nit kon rëy ak xir ak kañaan yett yoo xam ne ku ci mucc da mucc ci mooy yàlla yu bare bari waaye nag ku ci amee benn rawante ne am yépp moom xeeti mooy yàlla yu bare bari mën na la ca fekk xaddu nassa yaxal na cheikhuna sunu sëriñ asharifu kadi ab sharif maanaam kay satu yonente aljiili te moo di abdul qadir al jili laa zaala yàlla ba mu deñ daa ridan di boroom ngërëm wa daa tabjilin te boroomu màggal yaxal na ne an na tasawufa naka tasawuf xalaa bunyaanin nekk na ci ab tabax arkaanu mabnaahu ponki tabaxam ba xalaa samaanin nekk na ci juróom-ñett saxal xaliili moo di xaritub yàlla ba wa rida isxaaq ak ngërëmal isxaaq wa sabru ayuba ak muñuk ayub allës yi ka nga xam ne xadd faaqa kawe na nee na cheikh abdul xaadir al jilaani yi daa wax ne tasawuf day soo ko misaali woon ab tabax da ngay wax ne kon tabax bi am na juróom-ñetti poto yoo xam ne ñoo koy dëgëral maanaam kon mel na ne ponki tasawuf ci ni ko waxee moom Cheikh Abdul Xaadir juróom-ñett la juróom-ñett yi wax nag benn bu ca ne mbirum ab yonante ndax ba ci jëkk mooy tabe ci sa alal tabe ci saw ñaqte te yàlla tax tabe googu nag sunu maam Ibrahim da ko amee woon moo mu ne kon ba ci njëkk mooy amee tabe gu mel ne ku xaritub yàlla ba ibrahim kon bi jëkk ci bonk yi mooy tabe ci sa alal tabe ci sa ñaq roy ci doxinu sunu maam ibrahim na mu tabe woon ci léppam ngir yàlla ñaareel ba mooy gërëm la yàlla dogal ci yow ak lu mën doon rek loolu it kon dañ ciy aw tànki isxaq Isxaaq yonante la boo xam ne dafa ame woon loolu te mooy gërëm la yàlla dogal ñetteel ba mooy rafetu muñ aw ci tànki ay yóob ay yóob suñ boroom tagg na ko ci alquran ne inna wajadnaahu saabiran ni'mal xabadu innahu awwaab kon bokk na ci ponk tasawuf rafetu muñ aw ci tànki ay yóob ishaaratun akuk junju li zakariya añel zakariya kasaaniki ni xurbatu yaxya tumuranke gi yaxya suufu muusa ak ngënalal muusa almuhtaza kadi roy way we nga weesu yett da caa mooy tabe ak gërëm la yàlla dogal ak rafetu muñ ñeenteel bi nag mooy li wax ne junjuk zakariya Zakaria dafa demoon bay mag soxnaam di mag te amul doom mu ragal nag génn àdduna ñamu bàyyi gannaaw du am ku leen taxawu ci mbirum diine mu ne sunu boroom ah yow day dara tawu may ma doom ndax su ma fi jógee ñu taxaw saa gannaaw ci diine yi ba ko su borom ne naa la may doom nag mu ne ko jox ma tegtal bu may xàmmee ne sama soxna si ëmb na mooy xaala rabbi jaxal lii aaya suñ borom ne ko soo amee ñetti fan ñoo xam ne daal tudd yàlla rek ngay def salamiñ du jëm ci leneen lu may tudd yàlla xamal ne kon sa soxna toll na diggante ba mu ko ne aayatuka allah tukallima naasa talaata layaalin sawiya ñetti fan ñoo xam ne daal ngay tudd yàlla rek waaye doo wax jeneen wax te tiw laa nekk nit ku sottee sotti loolu boo ko gisee rek xamal ne sa soxna si ëmb na maanaam téye aw làmmiñam daal ci lépp loo xam ne amul tuyaaba loolu mooy ñeenteel bi juróomeel bi nag mooy ñemeeg tumuranke na ko yaxyaa ñemee woon juróom-benneel mooy wayafal lépp lu aju ci wàlluk col ak rafet-rafeti àdduna li nga xam ni moom la Moussa melan ba daan sol ay yére der ndax ñàkk faale lu aju ci taar-taar lu ci col mbaalu ko nuru ci kon way wi yetta ngi ci way wu njëkk wa yetta nga ca muy juróom benn siyaaxa tubb ni maryamin ak tukkib ibnu maryam mbaa nga ne wëreeluk ibnu maryam mooy xiisaa xiisaa te daan wëreelu ci wàllu suuf si di gën a gis kiimtaan yàlla di ci yokk ak waaru ba tey nag bokk na ci ponki tasawuf di wëndeelu ci wàlli suuf si di gis mindaafon yàlla yi di gën a gis yàlla yi di ca yokk ak waaru wa faqru dina ak ñàkkuk sunu sang ba almuxtaari ka di kuñ tànn wax wate moom albarru moo di aji baax ja wareeluk xiisaa googule ci wàlli suuf si ndax mu gis kiimtaan yàlla di ca waaru mooy juróom ñaareel bi juróom-ñetteel bi nag mooy ñeme ak ñakk ci àdduna li nga xam ni moom la yonante bi taamu woon mu gënal ko am ndax yàlla mayoon na ko soppil ko doj yi maanaam montagne yi muy wurus mu ëpp ñëpp ci àdduna waaye mu taamu woon rek di xiif ak a mar ak a sant yàlla ba bu muy wuy ji boroomam nga xam ne nee nañu këram daana am ñaari weer yoo xam ne ci togg du fa tàkk xam ne kon naan soow ak lekk tàndarmaag yi demee noonu rek waaye di su fa taal cin ci diir bu yàggee noonu te loolu lépp lu mu coobarewu la juróom-ñett yooyu Cheikh Abdul Xaadir nee na ñooy ponki tasawuf fal al na laaj alxaalima aji xam ja waxzu te nga roy almuttabiha aji topp ja li sunnatil muxtaari ñeel sunnas kañu tànn xayri man kay ngën ji ka nga xam ne tabiha topp na sayyidina mooy sunu sang xabibina tey sunu soppe muhammadin te moo di muhammad salla yal na dolli tedd nga xale ci moom rabbuhu boroomam fii abadin ci faaw hoo moom allësi mooy ka nga xam ne yadulluka dana la tegtal ad dëhëra ci jëpp jamono xalaat taaxati rabbika ci topp sa boroom bi nax ci aw yoon iatala wow kawe na kama yakunu naka muy nekke za tahdirin di boroomuk wattandikuloo laka ñeel la minit tibail maakiri ci topp aji fexe ja maanaam fexekat ba alxaroori kadib waraakon lii nag moom la daaneele téere bi daa wax ne loo xamut koy laaj ña ndax li farata ci xam-xam rek mooy loo toll rek xam ko kon nag loo xamut na ko laaj ña xam te it nee na da ngay fekk ku topp topp sunna ngoroy ci moom mu la cay teete ndax ku topp sunna bo àndeek moom rek yàlla mën naa def nga àgg ndax moom fu mu toll dalay wan yoonu yàlla ak bi di ca teete dila la nag yoonu seytaane ak i gaayam nga bañ koo jege ku mel ne kooku nag kon ànd ak moom mu lay teete war nga caa taxaw bu baax a baax loolu nag la daaneele téere bi li ci topp moom ay ku mel ne kooku nag kon ànd ak moom mu lay teete war nga caa taxaw bu baax a baax loolu nag la daaneeli téere bi li ci topp moom ay ñaan rek la yu tegale fa nasalu dana nu ñaan almawla buur bi alxali ki aji kawe subhanahu sorelal naa ko lépp leelul ci moom duniyaa ci àdduna wa uxra ak ci àlaxira siyaanatan ñoŋal xan radan walis alkande ne maa ngi ñaan sunu boroom mu aar nu mu aar nu sorilal nu lépp luy alkande fii ci àdduna ak fële ci àlaxira wa an nu waffaqa ak bu deefinu tawfiqal ila ittibaahi sunnati ahmada jëm ci topp sunnas ahmad ak tawilil baaxi kay aji gudd ab jéego nee maa ngi ñaan suñu boroom mu defal nu tawfiq ci topp rekk ci sunu yonante bi bañ caarax dara dara wa an yu salliya ak mu dolli teraanga wa an yu salli ma ak mu dolli wóolu xale yi ci yonante bi wal aali ak ñooñ ña wa man ak képp koo xam ne intama askanu na lëxoo jëm ci moom nee na maa ngi ñaan sunu boroom ba tey mu dolli salaatu ak yonante bi ak mbokkam ya ko gëmoon ak mboolem saxaaba ya wa an nakoona ak nu nekk xolama di way xam xaamiliina tey way jëfe wa an nakoona ak nu nekk awliyaa di ay waliyu kaamiliina ñu di way mat wa an nakoona ak nu nekk forxatal abraari di mbégum way baax ña jamihi mboole seen fi sirri ci lu nëbbu wal jihaari ak ci lu bir wa an naxoosa ak nu làq tawbatan tuub nasooxan guy aji sell wan nuura ak leer wal yaqiin ak wóolu wal futoox ak ay ubbi damaa ñaan suñu boroom mu def nu nu boole xam ak jëfe lanu xam ngir yàlla yàlla may nu def nu nu di ay waliyu yu mat sëkk-sëkk ba tey maa ngi koy ñaan mu defunu nuy mbégum mboolem gaa yu baax yi ci biir ak biti maa ngi koy ñaan ba tey mu may nu tuub gu sell goo xam ne day tax nu am leer am yaqiin am xeeti ubbi yi nga xam ne moom moo koy maye yépp rek mu sottil nu ko wa an yakkoona ak bu nekkee dan nizaamu wile way abadan faw sababa faw si kulli man di sababu texe képp koo xam ne iqtadaa roy na bihi ci moom maa ñaan yàlla way wii di way woo xam ne képp ku jéem a jëfee li ci nekk rek yàlla may la ca texe ba faw wa an yakuuna ak mu nekk xamalan di jëf maqbulan jur juñ nangu urdi yi tëj danaa gërëm loo bi ci moom al ilaha buur ba war rasul ak yonante ba téere bi yàlla na ko yàlla def mu jëf juñu nangu joo xam ne dama ci amee ngërëmam moom yàlla amee ci ngërëmal yonante bi wa an yakuna ak mu nekk sababan najaati di sababas mucc xablal mamaati ci njëkk faatu wala dal mamaati ak faatu ga ba tey téere bii yàlla ma ci yàlla maye ba amee mucc goo xam ne day sax faaw mucc ci bii may dund mucc ca waxtu wa may génn àdduna gannaaw ba ma génnee àdduna wa an yajooda ak mu tabe lil muridi ñeel taalibe ba as saadiqi ba eju dëggal bil fatxi ci ak ubbi wal asraari ak ay mbóot wal xaqaa'iqi ak i dëgg-dëgg maa ngi ñaan téere bi yàlla mayee ci bépp murid saadiq fatu ak xam secret yi ak xam dëgg-dëggi mbir téere bii yàlla na ci yàlla maye bépp murid sadiq xeeti fatxu ak xam secret yi ak xam dëgg-dëgg ya wa an akuna ak ma nekk daa imat tawxiid yi di aji saxoo tawxiid wal fiq ak fiq wat tasawuf ak tasawuf al mujjiidi aji rafetal maa ngi ñaan yàlla mu maye ma ci téere bii ma saxoo yett yi nga xam ne mooy diine te mooy imaan islaam ihsaan imaan nag xam-xamu tawxid da koy jàngale islaam fiq da koy jàngale ihsaan tasawuf da koy jàngale moo tax mu ne maa ngi ñaan yàlla maye ma ci téere bii ma taqoo tawxid fiq tasawuf te fekk na rek mooy imaan islaam ihsaan wa an akuna ak ma nekk naajiyan di aj mucc min allaini ci kañu rabbu wa min jamihi jundihi ak ci mboolem kuréelam ba fii kullihiin ci bépp waxtu maa ngi ñaan yàlla maye ma ci téere bi ma taalif ma mucc ci saytaane faaw mucc ci ay gaayam itam faw faaw wa an akuna ak ma nekk naajiyan di aj mucc min kulli suu'in ci lépp lu bon wa min jamihima ak ci mboolem la nga xam ne taxaafu dana ko soos mooy dana ko sib al anfusu bakkan ya téere bi maa ngi yàlla mu may ma ci ma jaare ci mucc ci lépp lu bon ak lépp loo xam ne bakkanub nit ku baax da koy sibaka fénati wa an ulazima ak ma taqoo imtidaa ahmada tagg Seydina Ahmad maxa salaatiya ànd ak sama julli xaalihi ci moom sarmadan faaw sàllaa yal na dool tedd nga xaalihi ci moom rabbunaa sunu boroom bil aali ànd ñoñ na wa bi sihaabihi ak ci saxaabaam ya dawil kamaali ña di mat azka salaatin gën jaa selli dolli teral bi salaamin ànd ak dolli wóolu taxabu kook dana may lii ñeel ma kaw ni sama nekk mu jaawi ren di aji dëkkaale laxoo ñeel ko maxal bi ànd ak teggiin ba tey nee maa ngi ñaan sunu boroom mu may ma ma sax ci tagg yonent bi ak sax ci di julli ci moom rek ci kaw loolu nag daal di faral jeexale téere bi julli ci yonent bi ne yàlla yàlla na dolli teraanga yonent bi ak mboolem bokkam yaag saxaabaam ya te teraanga ja mu def ko mu ànd ak salaam maanaam mu ànd ak mucc ak jàmm te mu ne teraanga ji may ñaan yonante bi dama bëgg yàlla maye ma ca man ma taxoo ak yonante bi di dëkkaaleem te saxoo sàmm teggin ya nga xam ne moo yell ci ku dëkkaale yonent bi taqoog moom saa yu nekk foofu la mawaaliqu niiraan yam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin